combat spécial baa ngi noonu dox ci diggante Mbaye Tine 2 ak Dame Souguer cey lamb Mbaye Tine 2 Mor la ne Dame Souguer numéro 2 Rock Énergie la ne cey lamb ñaari xale yaa ngi noonu Mbaye Tine am na xànc gu muy jaarale ci tànk yi di ko gàll ci kawam moom Mbaye Tine 2 ndaysaan fi mu toll nii say mbokk kenn talul lekk kenn talul naan fi mu nii sa mbokk yëpp wasaare lamb rek la ñuy xaar ñu dégtal leen lamb ji ndaysaan dox ci diggante Mbaye Tine 2 ak Dame Souguer Mbaye Tine 2 noonu la grand champion Lirou Diane maa lay nuyu. Ndeysaan Mbaye Tine 2 Dame Souguer lamba ngi noonu géwél rek ngay dégg Ndeysaan géwél rek mooy woy Ndeysaan géwél rek ngay am ñooy bàkk Ndeysaan ay géwél ku ko mën a fay ay sama mbokk yi ku leen mën a fay Ndeysaan takk ca tànk ya lii fu mu jugee ndeysaan xoolal la mu ca baat ba Senghor ba Mbaye xool na ma xoolal la ca kanam ga ka ànd ak am na lu muy génnee daa mel ne almet la lu muy taal gaz lay taal wala matt lay taal mbaa këriñ lay taal ay Mbaye Tine loo war a taal ci stade bi daali ñëng xale la waaye def na lu am solo ci làmb moom i daali ñëng ay ni nga def ba am ak góo ay noo def ba am ceeli nga toftal ci mbaytin deux ak daam su nga xam ne nii rek làmb la cey làmb goog ay sama yaay ndik cuunay bàkk noonu ndeysaan ndeysaan ndeysaan ak Papa Ndiaye ay dem mbub ndeysaan na ngay daw dañoo bañ a wërante daa bañoon mu wër daam si ngeer numéro 2 daw na génn làng gi mbay tina ngi noonu di wër ndeysaan cey lamb bëgg na ko mu bañ Mbaye Tine bëgg na ko wër mu bañ ndeysaan Mbaye Tine Mbaye Tine ak Dame Souguer am na lu muy raayoo sotti nañ ko bouteille ndeysaan Mbaye Tine am na bouteille buñ koy sotti moom it cay ndaysaan ñu ngi noonu di présenté ñaari mbër yi grand combat bien préparé ndaysaan diggante ku ci daan déclaré ndaysaan ku ñu daan maa la ko Ndeysaan Mbaye Tine numéro 2 ngi noonu yëkkati na loxo ba Dame Sougere nga noonu yëkkati na loxo ba fi mu toll nii ñi doon ñaan noppi nañ di xool ñaari mbëri ba xam seen yaram niinut laaluñu soow bu am nit niin mbaa laaluñu diwliñ xool nañ Ndeysaan ma ngay xool Mbaye Tine numéro 2. maa ngi xool Dame Souguer numéro 2 Mbaye baax na Dame Souguer am na lu mu sànni ci diggante xarantay tànk Mbaye Tine sotti na beneen sunguf moom Dame Souguer arbitre baa ngi wax ak ñoom ndeysaan arbitre baa ngi wax ak ñaari mbëri ndeysaan Mbaye Tine am na lu muy dugal ci ngemb la dugal na ko am na lu muy tekki ca loxo ba moom Mbaye Tine numéro 2 sànni na ko ndeysaan mbokk yi Mbaye Tine moo la woon di joor ndeysaan daaw sungeer moo leen woon càmmoñ arbitre bi ngi leen sifflé moo leen tàqale waaye sifflé moo leen di boole su ma sifflé ngeen commencé xeex raak ba génn boîte vocale su ma sifflé arrêté leen laaj na ay siisam laaj na Mbaye Tine laaj na Dame Souguer arbitre bi sifflé na mbokk yi samedi 4 janvier 2020 stade Diop Iba Mar Diop Idaly ñu ngi moo fi woo combat spécial baa ngi noonu dox ci diggante Mbaye Tine numéro 2 ak Dame Souguer ndeysaan Mbaye Tine numéro 2 Mor Fadam la nekk Dame Souguer Rock Énergie la ne da demee wet ñaari xale la yoo xamante ni lamb ju neex la nar a doon mbaytin daam su ngeer ña ngay léewaatoo mbaytin nee na ko kaay ci digg géew dagg na lang ga dagg na lang ga ñëw nañ ba ci saako yi di léewaatoo waaye saako yi duñ fekk kenn ku dem ci saako yi yaa ko fekk ndeysaan di bëggee képp koo xamante ne da ngaa safoo wasaare lamb di ko seetaan seen mbégte rek mooy suñu bànneex lépp lu ñuy wuti yéen la suñu mbokk internet yi arbi di attewaat na ndaysaan atte na ñoo leen ci digg géew bi fi ngeen bëree kaay fi ngeen xeexe waa lii mooy lan ndaysaan mbaytin taxaw na arbi wax na ñoom bëre leen bu leen dem ci saako yi saako yi ku fa dem yaa ko fekke arbitre bi si la waat na Mbaye Tine moo leen féetee ndijoor Dame Sungeer moo leen féetee càmmoñ ña ngay demee wet daam koo bëgg a wër Dame Sungeer daa bëgg a wër Mbaye Tine ndeysaan Mbaye Tine Dame Sungeer daw cokkaas na daw jëli ko cokkaas na rek daw jëli ko hee lamb Dame Sungeer Mbaye Tine ndegeñante nañ xeex amut daam su ngeer mbay daam su lu nar xew am na lu ma gis mot waaw waaw wàcc na jogaat na ndeysaan mbay daam su am na luy waaj lan la daam su ngeer lamb mbay daam su Sungeer Mbaye Tine Dame Sungeer Dame Sungeer jàpp na dugal ci suuf <laughs> Mbaye Tine ku yaakaar ni yomb na yaa nay nax sa bopp foofu góor la ndeysaan cey ndeysaan Mbaye Tine Dame Sungeer Dame Suguer Rock Énergie la ne ndeysaan fa la couronne roi des arènes bi ne ñuy nuyu Modou Xarañ Lo ndeysaan Dame Suguer Mor Fadam la ne ndeysaan Mbaye Tine numéro 2 Mor Fadam la ne di nuyu Mbaye Tine numéro 1 ndeysaan di nuyu Guy gi Pape Mbaye ma ngay dóor ak Dame Souguer lamb Guédiawaye ak Parcelles xaw ma tax lamb ji yomb rek ku weddi laajal Modou Xarañ Lo ak Balla Gaye 2 man daal lamb na ma ay parcelles derby la Barça Real la classico boobu ndeysaan ña nga ca de ñoom ñaar Mbaye Tine ak Dame Souguer Dame Souguer loxo càmmoñ bi jàpp na waaye Mbaye Tine ñaari loxo yëpp benn jàpp Dame Souguer boo xoolee déclenché na ko Dame Souguer mu mu nar Dame Souguer mu mu nar Mbaye Tine da ko war a teg siège lu muy waaj lu na ko daan na ko waaw waaw Mbaye Tine numéro 2 daan na Dame Souguer Mbaye Tine daan na ko fëgg na dënn ba ndeysaan oh Mbaye Tine Mbaye Tine daan na ko.